bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa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 ñaanal soppe almisbaax yi nga xam ne am na ci ñu tawat ñoom ñëpp yal na yàlla saafara leen te bañ a tëral kenn ñi nga xam ne dañoo tukki yal na yàlla sàmm leen bañ ñibbisi ci jàmm defal leen ko defal ko seenu njaboot ndax dafa mel ne dama cee xaw a bari ay xariti mag lool <laughs> te ñoom ku wax mag rek wax wéradi waaye bant na sew rek te du damm incha allah. wér leen lool yàgg leen fi ñuy wet leen rek incha allah noonu dana am solo ndax jamono soxla na leen te it seeni xalaat penc mi du dañ di ko soxla njaboot gi du dañ di ko soxla te ay wéttal ngéen lislaam moom loolu la jàppe muy mag dafa jàppe mag dañuy jaamu yàlla ci moom jàppe ne mag dañ koy fonk jàppe ne mag dañ koy wormaal xëy na nag yeneen civilisation yi bokkut ak suñ bos ñun mag moom dañ koy beral ak këram sànni ko fa seppi ko ca mbir yeeg ni muy doxee yépp waaye loolu day moom dëppoowut ak njàng njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax buñ leen roy ci loolu buñ leen roy ci loolu bari na mag ñoo xam ne fi mu ne li leen feebar du dara du ñàkk giñ ñàkk boole ci programme yi rek waaw nga xam ne kenn boolewu leen ci programme yi kenn du wax ak ñoom kenn du leen yëgal dara te mën naa am sax moom amu ci lu muy def ak lu muy dindi waaye yëg rek day tax muy dund waaw day bokk ci li nga xam ne da koy dundal waaw kon dération boobu am na solo lool donte mën naa jafe waaye jafe gi mooy tax mu nekk aw yiw mu jafe gi mooy tax mu nekk aw yiw te kenn ku nekk nag e, sa waajur mooy sa sens mhm. léeg nga am waajur wu naqari deret wu naqari deret wu compliqué nañ ma baal sax ci baat yooyu waaye nag léeg-léeg loolu am waaw waajur wu naqari deret wu compliqué waaye nit ki day xam ne rek lii mooy sama sens man daa mel ne sax bu góorgóorloo am àjjana ci loolu dana ko yomb bu góorgóorloo àjjana nar na ko cee yomb moo tax suñ borom waxoon ne fala taqul lahuma uff waaw bul ci béccingal kenn waaw wa in jafaaka faxtamil jafawtahu wa in afa fal tasturan afawtahu loolu la waajur moom bu juumee suturaalal njuumte la su fekkente ne dalaa teg aw mettit muñ ko ku ko dàq def rek incha allahu taala raw la fii raw la fële civilisation nag ak jàpp ne danga ngaa ak jàpp ne da ngaa xew mooy tax am yoo xam ne nit ki da koy jël rek tàmbali koo desal ginnaaw am yum tàmbalee xeeb jàpp ne ku branché wul la jàpp ne kii daal ku xaya di la wala nangam te moo ne day ci ñàkk branché am googu yow ci lala la branché waaw ci eh, noonu ko àdduna rawee nga jàpp ko yow ci lala la ci nga àndeek àdduna ndax dogon ko moom doo nekk loolu rek ab bor la boo xam ne fu ko gor xalaate lu am dugal ko ca waaw am na teraanga yoo xam ne bu ko nit defalee nit foo séenati nit kay dox rek eh, lu mu fayee teraanga jooju la war di wuti mhm. foo séenatee muy dox rek lu mu fayee teraanga jooju la war di wuti teraanga ji yàlla defal nit ci seppee ko ci mboolem mbindeefam mi def ko mu nekk nit dajale yi nite yépp ci moom boole ci ne ko maara teral bind la bind ba gën a rafet aj la kawe bul wàcc teraanga jooju tax na ko nit moom yitteem yëpp rek mooy delloo yàlla njukkal ci loolu ba du def mukk loo xam ne malaaka yi dañ ko naan accam yow de yow lañ ko jëndee woon waaye jëroo ko waxoon nañ yàlla ne ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuxaddisu lakk loolu lépp waxoon nañ ko ko waaye gis nga kii de moom xam naa du ñëpp waaye moom ci ñun la bokk naka noonu itam nit bu nee jàkk waajuram muy ndeyam wala muy baayam daa war a am kersa kersak wàcceewaat ay bëtam ci suuf waxuma sax kersak wegeel gi de waaye kersak teraanga yim ko defal am yoo xam ne bu ci xelam demee rek wërta mën a yëkkati kàddoom di ko teg ci kawam bu xalaatee ne daan lafab fab <laughs> tëral la ci kawam eh, eh, léeg-léeg sa tubay yàqu yàqaale ay yéreem ndeysaan te sànniwu la mu jël la dem raxas ba nga set indi la te boo moytuwut Euh, ndeysaan def nga ko ba waaw nañ ma baal ci njàngale moomu ndeysaan nañ ma baal nañ ma baal def na ko ba tàyyi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nit ki dana ko xalaat ci kanam waajuram tey nag mu jàpp ni civilisé na xeeñoo na parfum bu seer moo gaare oto bi sol na yére bu naayis romb na yaayam mi ngi yëkkatiku xew na ci jamono tax nag léegi maire bi moom bokkatut mbokk yi loolu dugnite dug dugnite nañ fàttaliku bu baax ne su fekkonte ne li suñ borom waxul ne maa ngi leen di dénk waajur yi ngir ngeen rafetal ci ñoom bu dul loolu budu dul woon loolu loola nag daa ñëw fa sax di lépp waaye bu dul woon loolu ñoom fi ñu jaar ak rek mënuñu leen koo fay mënuñu leen koo fay ndax ay moment la yoo xam ne ñoom dong ñoo fa jaar ak nit muy baay muy nday waaw rawatina ndey nag moo tax suñ borom ne wa wasaynal insaana bi waalidayhi eh, husna suñ borom nee na ma rikk rikk waay waajur yi moom maa ngi leen di bàyyiloo xel ci ñoom ngeen rafetal jëm ci ñoom daal di cay seppi nday nag wax coona yi nga xam ne moom la daj ci yow waaw ñëpp a sonn waaye mu ne rawatina yaay nag daal di wax xamalatu hummuhu wahnan ala wahn waaw sa yaay moo la ëmboon ëmb ba mu tegoo ci ay coona waaw nga doxloo ko ci naaju ba tàyyi muy dem visit man naa am amul woon paas waaw man naa am sax léeg-léeg lim lim daggee tike mooy lim waroon a ndékkee muy débrouiller di dem di dem visite ka ñëw di euh, di gus-gusi buy jóg sax du bëgg a du bëgg du bëgg a ndax xalaat na ne yow yaay am problème moom mën na cee am problème waaye dañ ko ah, li nga yore kay war yow yow defal ndànk def ndànk la war hmm? léeg am loo xam ne bu ko lekkee day waccu bu duggee ci gimiñ gi rek xel mi wëlbatiku mu tàmbulee waccu ndeysaan yi ko am parfon yoo xam ne daan na ko xeeñ léegi bëggatut parfon bi xeeñ ko yem daan sol yéreem ya jàpp ko mu daan waaxuy daw ak ñëw léegi mënatu ko ndax yow la àndal yaa ni ci biiram te bëggu dara nag dal la nga xam ne fonk la moom yaa ko gënal lu mën di am ci àdduna allahu akbar moment yooyu lu ne nday daj na ko ci ñun lu ne lu ne lu ne yaay daj na ko ci ñun waaw lu ne lu ne daj na ko ci ñun lu ne waaw gus-gusi ba tonn ci moment yooyu bis ñëw nag nga nga nga ñëw nga xam ne keroog bi nit ki di gane àdduna maanaam ndey ji sori na lool sori na lool tiit na lool dañ na mettit wu ne waaye ba mu noppee ci loolu ba nga ne wee coono bu mu dajoon fàtte na ko ndax yëg gim yëg ne yow ñëw nga ëndaale bakkan nga gënal ko lépp mu bég lool mu bég lool bisub keroog la coonaam ànd ak yow ànd ak yow ànd yow ànd yow ba ci li nga war a doon loxo yu néewoo ko ca fekk dimbali ko ca yàlla xam na ko. loxo yu néew ko ci fekk dimbali ko ci mbokk yi waajur dañ koy fonk dañ koy teral dañ koy wormaal dañ koy rus dañ koy jox cir dañ dañuy jaamu yàlla ci moom te doo jàpp ne fay naa ko li ma ko defal bari na vraiment tabax naa kër dugal ko ci maire bi defaral naa ko néeg defaral naa ko lal yóbbu naa ko màkka lu mu bëgg ma defal ko ko léegi wurumaa fat ay waay déedéet yooyu yëpp yaa ko def waaye nag rik waay fàtte ko fàtteel yi nga def te tàmbaliwaat fàtteel yi nga def ta tàmbaliwaat waaw lu am solo la lu am solo la mag ñi laa doon waxtaane samam xel dem ci loolu te it léeg-léeg mu di ma ci yenn taxawaay yi ci diggante eh, ñun ak suñu waajur yi waaw waxuma mag ñi nag waxuma leen yéen mag ñi mag ñi moom xam nañ loolu ñu ngi eh, jox cër seeni waajur waaye ñun ndaw ñi man ak sama moroomi ndaw yi léeg-léeg eh, am yoo xamante ne ak ndawe yobbu ci nit waaye na xalaat ki nga xam ne bu nekkuroon doo nekk. ci nekk nekkam gi la yàlla jaarale ba nga nekk waaw te li nga doon it mu def ci lu bari ndax moo la doon tëral ci kawam jël benn cëram jox la muy weenam ngay macc hmm? di nàmp ba tubarkàlla lu am solo la yàlla ñu leen yàlla sàmmal ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo ciy dund ba coono yooyu ñu doon daj yëpp ñu wéy nag jotaat ci bànneex bi ndax ñoom teraanga ju doom am bu leen ko defalu itam seenub xel seenub xol sedd na ndax looloo nekkoon seen i seen i yéene ñi nga xamante ne ñoo ci jiitule ay waajur yal na waajur yooyu suñ borom wàccee leen ci yërmande yegg na kawe waxul rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxiira moo tax yàlla ne booy ñaanal sa waajur pour nga xam ne yërëmoon na la waxal ne yàlla yërëm ko comme ni mu ma yërëme woon bi ma nekkee xale ndax ni la yërëme woon suma ko yërëmee rek affaire am baax ndax yërëmoon na la ala kulli alin yërëmoon na la yàlla leen yërëm yërëm mbokk yi loolu dañ ko doon laytaayale jotaay bi ni nga xamante ne ñoo ngi ci suñ bind yi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee li jëm ci aj màkka ak yi nga xam ne moo ci aju waaye léeg-léeg ñëw indi benn euh, euh, xeetu gendeeku rek boo xam ne dañ koy layte dañ koy laytaayale jotaay bi mu nekk ay fàttalente mën nañoo lot ci mu doon am njàngale waaye mu doon ab fàttalente rek démb nag bi ñuy yëkkati jotaay bi ñu ngi doon wax ci aj màkka ba ak fi ci kii aji màkka te bëgg ak ajam nangu nan lay def nan lay aje aj gu nangu ndax amut sikki sàkk ci ne bépp jullit bu yaakaar suñ boroom loolu yóbbu ko ci mu gëm ne dana dekki bëgg na ak ajam doon aj gu baax ndax bu boobaa mooy tax ay bàkkaaram ñu jéggal ko ko moo tax wax naa sart yi nga xam ne kii aji war na koo matale léegi nag bëgg a wax nag aj gu nangu ci suñ boroom mooy lan al maqbul inda allahi tabaraka wa taala ba njëkk mooy kii aji màkka na fexe ba alal ji muy aje ji doon alal ju teey doon alal ju teey alal ju lew da koy liggéey ba am ko wala ñu may ko ko wala mu donn ko bu boobaa lew na du ko carte du ko waga jaane du ko njublang na doon alal ju teey suñ borom nee na moom ku teey la lim bëgg nag mooy lu teey moom lay nangu waaye lu araam moom bëggu ko kon kuy aji rikwaay ak ku aji wut na fexe ba li ngay lekk doon lu lew li ngay naan doon lu lew li ngay sol doon lu lew booy aji màkka ajee ci lu lew bu ko defee jaamu yàlla gi nangu suñ boroom moo nangu ñaanu ki nga xam ne da koy ñaan te li mu lekk lewut li muy naan lewut li mu sol lewut waaye su fekkee li mu lekk lu dagan la li muy naan doon lu dagan ay yéreem doon lu dagan bu boobaa suñ borom moom alu mu ne alu rek la lii laa bëgg mun la jëlal rek jërut interprète loolu de yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko indil wax jooju ci xadis boo xam ne imaam muslim moo ko nettali ca téeréem ba abi hurayrata radiallahu anhu moo ko solo wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na suñ boroom de ku teey la suñ boroom ku teey la ku yiw la ku lew la <laughs> ku dagan la moom yàlla bëggul nag lu dul lu teey mu dellu ne suñ boroom lim digal ñi nga xam ne ñoo gëm mooy lim digaloon yonent yi yàlla nim digale yonent yi ñuy lekk lu lew te jëf lu baax noonu la ko digalee ñi nga xam ne dañoo gëm mu daal di nett li jenn waay moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bi ma nga toog fënd ay soppeeku mu tilim toroxlul boroomam yëkkati ay loxoom ci kaw samaan si diwoo yàlla nag di ko woo rek di ñaan waaye nee na lim sol dafa xaraam lekkam gi dafa xaraam naanam gi dafa xaraam mu ne kii nan la ko yàlla di wuyoo nan la yàlla di nangoo ñaanam gi te yim dajale ba toog ci kanam yàlla yëpp yàlla da ko jëppi ba di ko xool accepté wuñu rendez-vous bi kon moom nan lañ koy mayee dara waaw <laughs> audience bi baaxut dafa am yu mu waroon a matale te matalewu ko moo tax kenn du ko accepté mooy xadis boobu Abu Hurayra wax ne inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha taala amara al muminin bima amara bihi al mursalin fa qaala taala yaa ayyuha rusulu kuluu min tayyibatin wa amaluu saaliha wa qaala taala yaa ayyuha alladina aamanu kuluu min tayyibatin maa rasaxnaakum suma dukira rajul yatilu safar as as axbar yamuddu yaddayhi ila sama yaa rabbi yaa rabbi wa mat'amuhu xaraam wa masrabuhu xaraam wa malbasuhu xaraam wa qudiya bil xaraam fa anaa yustajaabu li daalika ay kayfa yustajaabu li daalika rajul wa maasuhu kulluhu xaraam hadis boobu rek mooy bi ma doon jàng léegi ci wolof noonu la tëddee ci yax bi kon kii aji dafa bokk ci li tax ak ajam nangu ba ci njëkk mbokk yi na fexe ba li muy aje doon lu dagan aj màkk dafa bari ay coono de dox ba metti coono yi nit ki di tegoo metti tukki ay fan doo gis sa waa kër fanaan àll daj lu nekk ki koy def ba noppi di ci dépenser alalam na doon alal ju lew yow mi bëgg a yóbbu sa ndey màkk di ko reewee ka di wax yóbbu ko rek moom a gënal rik waaye góorgóorlul ba yóbboo ko lu lew boo ko amut ba mu faatu te di mun màkk gàcce ngaa laa maa moom bu ko defee du ci am daane suñ borom subxanahu wa ndax du ko amut wàcc na ko dañ dañ dañ dañ dañ dañ dañ dañ ngir damaa bëgg a dem màkk jamono jii nga xam ne da nga gis koo xam ne dana faat ay waxtuy julli julli farata yi mu waroon a julli fii ndax lan lijjanti ji biye màkk gis koo xam ne dana wax lu dul dëgg ndax lan bëgg a bëgg a am biye màkk nee na gis koo xam ne dana yàq ay diggante rambaaj rambaaj dem ci bureau yu toog di yàq deru nit di wax nangam te li nga bëgg lépp rek mooy am wàccuwaay ngir yow ñu ne la ah yow kay yaay dem kaay dem màkk yow léegi li nga ci jublu xamoo li ngay defi mooy lan boo àggee ne yàlla ñëw naa mun la loo fi wut yow ku la fi woo ni nga fi ñëwee moom taxul may waxuk ñëw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ngir bëgg ñoo noppal mu ne aj màkk benn yoon la nekk farata ci dundug nit ci ku ko man ku ko man nga xam ne incha allah bu ñu demee àjjana ak jàmm danañ fa dajeeg ñu baree baree bari ñoo xam ne dugg nañ àjjana te te aj siwu joon màkk ndax lan dañ koo mënut woon ba noppi jaayuñu woon seen ngor defuñu woon benn waga ngir jot ci gis nga lu xew rek seytaane da cay dugg ba yàqal ci nit lu bari lum mu ko woon a yàqal waaw lu noobul la lu baax la lu sell la lu rafet la ci xol waaye léeg seytaane ñëw yàqal ko nit ki te du ko yëg ndax ca pexe ya waaw pexe yi ñu def bari na lool biyee màkk yii ngay dégg ah xam naa du yëpp de waaye bari na lool yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla am na leneen nag yu ne ci ginnaawam yoo xamante ne bis dana ñëw xam naa nag ñi ma gën a jot kàddu jàngat ko bañ yëg ne mbir mi du àgg màkk rek moo tax léeg-léeg nga nga dem ci aj ga gis koo xam ne comportement bi muy amee da ngay yëg ne kii effort yi mu waroon a def ba ñëw màkk moom la defut moo tax bu ñëwee sàggane li muy def si ndax ñëw gi benn da koo yomb wala ay pexe rek la ñëwee bu ko defee moom du ci def dara waaye ci góor góorlu am lu lew waajal ko jàng aj fas yéenee soppeeku ni ma ko waxee woon ci bindu démb ba nga xam ne biñ ko nee su mil séeré yi nga woddu te sangu biñ ko nee sa tur sax dañ koy soppi noonu lay yëgee ne bi may summeeku bi may summeeku dama yëg ne am na jikko yoo xam ne dama koy summeeku waale am na jikko yoo xam ne dama koy summeeku waale nit ki day am ay jikko yu soof ci boppam yoo xamante ne moom war na koo xam war na koo xam su ma ciy joxe exemple man dinaa wax ne am na jikko yoo xamante ne neexuma ci sama bopp xam naa ko léegi nag jikko yooyu nag kañ la laay dogu nag ci ne jikko yooyu dama koy bàyyi wala damaa jàpp ne rek dama ko war a deyaale nga xam ne jikko lay doon ci man rek duma ma ko bàyyi mukk déedéet war na maa mën a dogu nag ne man jikko yi da bàyyi naa ko lii moom day dañ dama koy ba léegi nag dogu googu ngay dogu ne da koy ba suñ borom nee na ku ko def ma dimbali la waaw ku ko def rek ma dimbali la la nahdiyannahum subulana waaw walladina jahadu fiina la nahdiyannahum ñi nga xam ne dañoo kër kër yi bëgg a baax yàlla nee na maay jàpp seenu loxo teete leen bañ baax waaye ñi ne yàcc yàpp ne duñ baax mukk yàlla nee na ñooñu moom boo moytuwut ca loola lañuy faatu yàlla nañ ci yàlla musal waaw kon nag effort la kër kër yi rek kër kër nañ ko def kii aji na góorgóorlu ba aje ca nam lewe nga xamante ne du du sàggane suñ borom ngir waajtaayu aj màkk jamono ji nga xam ne mi ngi waaja a aji fu julli jote ne yëg ne la muy defi lu ko gënoon a farata teew na nag mooy julli nekkoon ab ponk ñaareel ci lislaam kon na ca taxaw mu def ko bi koor gi jotee bu ko ci kenn man bu fekkee amun ngant respecté doomu aadama yi ci ñi mu war a dimbali te tane leen mu leen di dimbali góorgóorlu ci lépp lu baax ba dem jot mu dem te sellal na muy demee fexe yóbbu alal ju lew bu ca noppee ba ñibbisi nag mu bañ a jàpp ne moo gën kenn ndax saytaane boo góorgóorloo ba réussir yooyu boo ñëwee mun la gaa yi doo seen morom yow dem nga ba ñëw ñoom ñu toog fii rek manoon nañoo dem de waaye ñoru leen ñii ya leen gën bu ko defee ngay fuggale ko waaw di sax nga ne kii xanaa xamul ne damaa demoon màkk <laughs> damaa demoon màkk bu ko defee loolu bokkut yi nga xam ne dafa gën te saytaane noonu lay niir baaxut bu ñaareel bi ginnaaw yóbbal bi ngay yóbbaloo alal ji doon lu lew ak yi aju yépp mooy kii aji de yéene def ko te yàlla tax def ko te yàlla tax allahu akbar loo am solo noonu mooy limuy def mu defi ko te yàlla tax maanaam sa doom moo lay yóbbu bàyyi kaay dem wala yaay kaay dem bu muy dem na dem te yàlla tax na ko yëgal ne ko dafa am benn ponk lislaam boo xam ne dalaa war te bokkut ak dem ca jàkk ji julli ji bu doon loolu bàyyi yaay jóg dox dem julli ji ndax def nga ko ba tàyyi bu doon koor la yaay umandoog nit ñi di woor woor nga ba tàyyi bu dee asaka la loo ma sa am tam war caa génn génnee nga ko ci bii nag faaw ma jàpp ci ngir nga def ko ndax ala la koy def maa ko def nag waaye yàllaa tax ma defal la ko wala moom ci boppam moo comp ci alalam ne li ma am damay aji waaye nag danaan damay aji ndax mottu li benn ponk lislaam dama koy def te yàlla tax an yanwil muslim bi xajjihi wajhillaahi taala bañ cee jublu ngistal bañ cee jublu nit ñi tagg la wala bañ cee jublu ñu ne dafa baax wala bañ cee jublu ñu ne dafa demoon aji màkka at mu jot mu dem fa inna al xajja ibadatun yanbaqi an takuna xaalisatan li wajhihil karim waaw aj màkk jaamu yàlla la goo xam ne dafa war ci nit ki koy def mu sellal la muy defi te yàlla rek tax sellal gi da caa baax moo tax alxuraan waxoon na ne koo xam ne gëm na ne dana dajeeg boroomam ëllëg kon yàlla ñi muy waxal dëgg-dëgg mooy ñi gëm dekki mhm. ñi gëm dekki fa man kaana yarju liqaa rabbihi ñi nga xam ne gëm nañ dekki am na ñoo xam ne àdduna rek lañ gëm mën naa wax nag ne gëm naa dekki waaye su ma jëfee rek ñu xam gëm naa ko wala déet ndax waajale lu dara dekki nga xam ne cinq mille francs jaral na ma foye lañ ma dig àllaaxira lépp ngir jot ci àddunaa ma tax a jóg kon bu boobaa benn kay wax ko directement wala jëf ko indirect rek ñu xam ne li nga jëf nii lii la fa man kaana yarjoo liqaa rabbihi ku gëm dekki yàlla nee na li muy jëf na góor góorlu ba mu baax waaye bu mu ci boole nag di ko def ndax kenn na ko jëf tama tax waaw na ko jëf tama tax wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada kon ajji na yàlla tax bu ñetteel bi mooy ki nga xam ne day aji mu ragal yàlla kemtulaayal kàttanam lu man mu ragal ko ci waxtu yi demam ci waxtu yi ñëwam ca ña muy àndal ba muy génn këram ba ba muy dellu si mu góorgóorlu ba lu fi wax lu aw yiw falaa kallam illa bi xayr waaw maa gis te aj ga ñuy saagante waaye ay waajur waaw di saagante daggalante ñu leen di téye te dañoo armal waaw dangaa yaakaar ne li ma armal dana tax du ma la tontu ba tax lu la neex def armal ba ci lan waaye yow daal di jéngu <laughs> daal di jéngu waaw gis ca aj ga ñoo xam ne dem nañ ba màkka di tongoo maa ko gis ñoo xam ne ñoo ànd di waxtaan di kaf di dem ba ci aj ga tongoo ñib tuddantewuñ ba ni ñibbisee man mii maa ko gis waaw waxoon naa leen daaw ba may waxtaan ci aj gi ne leen demaguma yu ci bari dama naan dégg naa waaye léegi nag mën na maa wax ne fekke naa waaw loolu moom yàlla def na ko ci mbaaxam ñoo ngi koy ñaan mu nangul ñu lépp waaw ñoo xam ne ñëw nañ ba foofa du ñu tuddante gis naa ñuy jëwante ñuy jëwante bokk benn néeg di jëwante ñii génn ña ca des di jëw ña ca des waaw ñii ci seenub lal di jëw ña ca des maa ko gis ca aj ga ñu bokk benn néeg armal ànd dem julli ji kii jiitu kii topp ca gannaawam ka ca ginnaaw di jëw ka ca kanam waaw bokk benn néeg di jëwante kii génn dugg ca wanag wa di sangu ca toilette ba ñeneen ñu tëdd naan suñ waa ji ñu bokkal néeg waa ji de moom nangam nga xam ne ci deram ngay nekk ba mu ñëw bu keneen jógee dugg ca toilette ba ñu song ko ca des te dañoo aj dañoo acci kon góorgóorlu wuñ ba nga xam ne duñ wax lu dul aw yiw falaa yatakallam illa bi xayr allahu akbar moo tax kuy aj da ngay am fulla nag waaw ku bëgg a aji daa bokk ci liñ la war a jàngal bokk ci formation yi ñu war a defal kii aji mooy formation amal fulla amal fulla ba bu kenn yàq li ngay def waaw néewi wax tëgtalewut ak ñàkk teggin waaye wax ju bari mën naa dugal nit ci safaan ba waaw danañ débat ci politique bi danañ débat ci musique bi danañ débat ci làmb ji danañ débat ci suñ biir danañ wax ci lu ne ta am nañ nag yu ñu doy sëkk buñ bokkee ab néeg ñu waxtaane ci mooy li ñu fi indi mooy lan bu mënta ñàkk ñu waxtaane li ñu fi indi mooy lan te dañ la dimbulee lu tax nga mar a tax ndax néeg bi nga nekk boo siggee da nga gis télé bañ la fa defal bu dee ma dinatu a wala jumaa yonent bi dong lay wone di jàng ay xaddis ci suuf ngay dégg mu lay woon jumaa ji vingt quatre heures sur vingt quatre loolu la lay woon te en direct lay doon bu dee màkkatal mu karam télé bi ngay janool ak foo mën a nekk sa hôtel ak fu mu di doon kaaba gi la lay woon di jàng alxuraan kaamil bu jeex beneen tàmbali mu lay woon nit ñi di tawaaf léeg-léeg mu woon la ñuy daw safa ak marwa léeg-léeg mu woon la ñuy ca samsam yooyu la lay woon biir jumaa jaag bitti ba dëkk ba waaye loolu ki bëgg a waxtaan mën naa yem ci loolu tënk aw làmmiñam ba du ko génn waaw bu ko defee ñu bàyyi suñ jëmm yi nag jàmmalante tuuti jàmmalante tuuti waaw ndeysaan jàmmalante tuuti waaye léeg-léeg mu indi ak ndoonoo de waaw maa ñu ànd fii dooni xarit nekk ay complice dem ba màkka tongoo ba duñ tuddante kenn ku ne jàpp sa njàmbur ku ne fooyu jëm fële ci ay détails waaw yal nañu yàlla boole jéggal moo tax ki aji day góorgóorlu ba ragal yàlla kemtalaayal kàttanam falaa yatakallam illa bi xayr wala yafalu min al afaal ma yatanaafa maa haasi ibada al jalila mu góorgóorlu ba du jëf joo xamante ne day dàqoonteeg tiyaabay jaamu yàlla gu rëy gi nga xam ne moom la ñëw def si bu yàlla mayee ñu dund ba suba yàlla nañ dund ba suba te weesu ko daañu àggale bunt boobu buñ ca noppee waxtaan ak mbokk yi ki nga xam ne dafa dogu ngir dem aji yan la war a waajal yan la war a waajal nan la war a waajale ajam gi ak yi nga xam ne moo ci aju yal nañ yàlla ñu dund ba suba te weesu ko jaajëfal nañ leen bu baax a baax a baax jaajëfal bu baax Oustaz Alioune Sall mi ngi nii di egsi moom la ñuy bàyyee jotaay bi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te ñaan yi muy ñaan ci ñun yëpp yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu xam naa ne moom ñaan la ci man waaye su fekkonte ne am na meneen pexe wala yeneen yéene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 wa rahmatullahi taala wa barakaatu